waa Sénégal maa ngi leen nuyu di nuyu képp koo xam ne fan si Bril nga di tamit profité ci vidéo bi di leen baalu àq te di leen baal àq ci weeru sel wi ñu nekk muy weeru koor di leen ñaanal aussi ngeen fekkee ko ay at yu bëree bëri. donc vidéo bi nag day doon vidéo boo xam ne du gudd vidéo bu gàtt la juste pour apporter quelque éclaircissements ci euh, sortie bi nga xam ne Bouba Ndour def na ko pour wax ci procès bi nga xamante ne amoon nañ ko fan yi weesu ba ci dëgg. donc damay euh, expliquer tuuti rek problème bi ni mu demee ak lan ak lan moo ñu boole euh, parce que personnellement man Bouba Ndour xaw ma ko musuma ko gis mosuma taxaw moom xaw ma ko damay dégg turam nii rek donc ñoom dañ def seen benn série tuddee ko taay fii jël sama benn œuvre def ko générique gu film bi def ko ci début def ko ci fin di ko utiliser pour ay fond sonore xam nga olof Njaay doon na benn wax naan wax bu feebare nopp yoo koy dégg ñoo war a wér nit ku àndul ak xelam sax bu defee ab way nga woo ko téléphone ne ko sa way bii de dama koy jël dama ko bëgg a jël pour liggéey si def ko euh, générique gu benn film début ak fin ba noppi di ko dawal ci ay publicité si yenn publicité yi bu ma koy def moom laay jël def ko ci suuf xanaa dof sax boo waxee lool dina la kaay toog ñu waxtaan bindu contrat saxantuma nit ko ànd ak xelam. man aussi ma nekk nit boo xamante ne Sénégalais yi tey bu ñu ma xamee ñu si bëri ci série yi ñoo tax ñu xam ma jaar naa ci ay série liggéey ak tamit maison de production boo xamante ne mën naa ne tey ñooy numéro un ci affaire de série au Sénégal te liggéey nag ñoom liggéey bu rafet ba jóge fa te kenn mësuma dégg ma ak ñoom problème parce que. lépp lu ñu doon def da doon day jaar yoon tey bu fekkoon ne toogoon nañ man ak Bouba Ndour ak ñooy ñor ñoo def série bi ñëw def contrat waxtaan mën na leen euh, mën nga am ngeen autorisation jël jël li nga xam ne maa ko moom def ko générique début ak fin utiliser ko pour seen publicité kon wax ji du ma sa egg fii parce que du ma nit boo xam ne damay jox nit aval ci dara pare ñu si delluwaat ba pare euh, jamono toll na foo xamante ne lépp looy wax ak nit ci wàllu liggéey da koy bind day doon rapport bu ñuy bind ma bind man Bril man maa autorisé diw mu utiliser sama son pour liggéey ci def ci lii ak lii ak lii même bu doonul par écrit sax mu doon par mel yàlla mu ma tiim suma jox autorisation Bouba Ndour wala kii que ce soit ne ko mën ngeen jël sama way wala sama œuvre utiliser ko def ko générique début ak fin utiliser ko pour sam seen yenn publicité billaahi wallaahi wa taala ci weeru sel wi ñu nekk mi weeru koor ak li ma jot a woor ak li ma woor moom juddoo ba tey bu fekkee loolu am na yàlla bu yàlla nangu samay koor loolu mosul am te artiste du benn nit artiste benn bi la ñuy gis Bril la gis au devant de la scène mais Bril équipe la donc parce que artiste li ko composé mooy artiste bi manager bi ak staff baak ñëpp y a beaucoup de personnes derrière bi nga xamante ne man ak ñi may liggéey ñu def nañ constat ci loolu gis ne du yoon te réew mi am na yoon ñu yónnee leen sommation bi nga xamante ni yónnee nañ leen sommation pour man Bouba Ndour moo naam tuuti grandeur woo ma ma ànd ak euh, samay staff ak sa manager ñu dem toog sur table waxtaan li jënti mbir mi suñu biir. mais il ne l'a pas ñoom ñëpp sax laax ils ne l'ont pas fait ils di essayé d'ignorer d'ignorer affaire parce que peut na euh, bril ne signifie rien du tout quoi donc yoon nag def liggéeyam àtte li nga xam ne mooy dëkk man nag. nit laa boo xam nit ku doyloo yàlla la eh, damay sant yàlla bu baax a baax ci li nga xam ne moo koy jox ma koy suturloo te képp kuy suivre musique sénégalaise nga liggéey bi ma fiy def danga ciy def liggéey boo xamante ne liggéey bu am importance la ci nouvelle génération bi ci beaucoup de hit yi nga xam ne ñu ngi ko fiy def te loolu maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax donc euh, yoon àtte na nag bu dee d'accord ci li nga xam ne yoon moom la àtte nañ dugal recours amul benn problème nañ dugal recours Euh, yoon àtte ko plus de dix fois bu ñu bëggee y' a pas de problème donc euh, may profité tamit ci vidéo bi di lancer appel ñi nga xamante ne euh, ñooy protéger droit d'auteur au Sénégal muy la SODAV société nationale des droits d'auteur et voisins di leen ñaan rek ñu gën a bàyyi xel ci protection artistes yi ci œuvre artistes yi donc nag ma leen lancer appel di leen wax ne même bu dul man. nañu gën a bàyyi xel artistes yi di leen gën a protéger ci lépp li nga xam te mën nañ ko ci wàllu liggéey ñuy liggéey. waaw vidéo bi loolu rek la woon sama gars yi maa ngi leen remercier bu baax a baax ci déglu bi nga xam ne déglu ngeen ma ko ci sama Instagram ak Facebook bi nga xam ne man mooy sama télé. donc heure bu ñu génn ci seen télé pour euh, wax ci problème bi man dinaa génn ci sama télé yi ma man tamit mooy Facebook ak Instagram pour apporter leen ci ay leeral incha allah rabbi may profité tamit di wax ne leen ne après koor gi incha allah di ngeen jot ay nouveautés yu bëri donc ci Bril ak artistes yi nga xam ne mu ngi liggéey ñoom yëpp incha allah rabbi jaa jëf.